bismillahirrahmanirrahim bon maa ngi len di nuyu yéen ñëpp kenn ku si nekk si turam ak santam euh, di nuyu maam Birane di kontan lol si dalal bi ngeen ñu dalal parce que daanaka dañu la woo rek wax la nga nangul ñu ñu am nag benn événement boo xamante ne nii TV daf ko organisé bi mu ko organisé muy euh, dîner de le 28 février li tax suñu xel dem si yow pour ñu boole la si parrain yi mooy relation boo yàgg am ak télé bi yàgg ñu nag jàppale jàppale ak suuf goo xam ne jëmul kaw yàgg ànd ak ñun fu ñu la soxlaa it nga yombalal ñu ko lool donc dama cof tuuti rek si relation mais mënoon naa wax lu si ëpp lu gën a bari loolu ndax euh, même en dehors télé bi sax sama xarit nga sama lepp nga dañuy déggante lu bare bare bari lay bu dara xewé ma jël sama téléphone wo la n'importe quelle heure da nga may wuyu waxtaan ak man wax deug yalla limo soxla xam lepp nga nga nga nga nga wax ma si ñu waxtaan ci dal ba déggo ci cadeau donc c'est pas la première fois ñu ñew ci yow c'est pas la première fois ñu tok ak yow kon dañu lay sante encore une fois di la gërëm di la wax ne parrain bi ñu la def ci bés bi lo mérité la ndax li tax nga mérité ka moy Euh, li ma wax léegi rek da nga ñu yàgg a jàppale télé bi di ñu jàppale jàppale suuf goo xam ne jëmul kaw xëj na léeg bu ma daan bëgg wax sax nga dama siyaas garaawul bàyyil noonu donc kon tey bu ñu yegsee ba si niveau bi bés bi toll ak dayo bi mu am wax dëgg yàlla tey jàpp nañ ne ak euh, liggéey bi ngay liggéey si biir dëkk bi ak euh, taxawaay bi nga am fulaak fayda bi nga am loolu moo gën a yokk a tax ñu ñu tànn la télé bi nag télé bi yoof la yoof gépp ñoo ko bokk amuñu xàjj ak seen faruñu fii faruñu fële ñun li ñuy wax toujours benn jubluwaay la ñu am mooy yoof lépp lu lu luy luy développé yoof rek ñun ñu ngi si biir euh, beneen bi mooy si côté politique xam nga mbir yi la ma waxoon barki démb sa mairie ba rek laay répété waat dafa xala doy waar tuuti ndax léeg-léeg tey boo jëlee maam biraan waxtaan ak moom tek ka ñetti yoon ñent yoon ci télé bi ñu ne temps yi la jël moom la faral bu suba nga jël euh, Ablaye Diouf sar ñu ne Ablaye Diouf sar la faral ginnaw suba nga jël euh, sayyidna isa lay Samb wala sayyidna isa lay Ban ñu ne ñom la faral parce que ñoom ñoma dekk donc c'est un peu compliqué mais euh, ñun faruñu ñoo far ñun liñu ñor moy yof tay biran dafa am lo xam ci loolu lay yëngu su li muy yëngu nag gis nañ ne am na njariñ am na njariñ si biir yoof loolu moo waral ñu ñëw euh, mu nekk suñu partenaire bu yàgg moo waral ñu ñëw tey pour euh, indil la lettre bi euh, parrainage bi nga nangul ñu koy ci xol bu sedd guy kon dañu lay bàyyi kàddu gi te di la jaajëfal quoi suñu xol sedd na lool. salaamaaleykum Sias salaamaaleykum mbooloo mi fi toog ak waa Yoff maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. di len gërëm di len sante di len sante tamit si jappalé bi nga xamné yeen ngi ñukoy jappalé ñun wa parti rénovateur progressiste man may président parti bobu tudd biran benga soso yof ñu am mbégte lool tay pour dalal wa yof mbolo TV ñu xamné ñu ngi nekk suñu partenaire yu yàgg ñoom buru ñuy def liggéey bu reuy si yof ñu daan and ak ñom si yenen anam ba tey yàlla dogal ñu fekk ñu si tamit si beneen melokaan muy politique bi masuñu changé benn yoon ndax toujours vocation seen vocation mooy nekkal fi Yoff fu couverture am ñu dem teg ko ni ñu ko war a tege population bi tam di si bénéficier wu léegi fa ngay toog ngay toog xam li xew yoof yëpp xew boo demul tamit di nga xam ña fa nekkoon ak na mu demee loolu defe naa avancement la te ñu ngi leen di ñaanal mu yokku mu sax itam suñu taxawaay si yoof tamit lu loo xam ne dañ koy sant yàlla la duñu si sonn duñu si tàyyi ndax toujours ñu ngi am ay tànki kanam yoo xam ne ñu ngi koy def jëmale ko si yoof ak doxalinam tey ngeen seet si ma pour euh, une chose très spéciale muy soirée de gala boo xam ne da ngeen ko war organiser ñuy am mbégte lool innovation la parce que nit lépp lu muy nekk avancement la siy ñaan ak yokuté té boy sét yéen nga ci tank yoyu yalla nako yalla ko saxal té yagal and bi tamit li nga wax ci man rafet na waye li ma xam ci yow tam moko ëpp defe na bi ma lay xam tam télé bi taxul ma xam la bobu xalé bu tuuti la nga daan ñëw kër ga si liggéey bi nga yoron jamono yoyu nga daan ñu offrir say service man falaa la xamé ba nëga ni ndax bima bi ma dugg nga fi tam dama né évolution la par rapport ak activité bi nga tambalé won noonu la nit day am vision ñii nga àndal aussi ma di leen ñaanal compagnonnage bi yàgg fidélité bi am parce que pérennité si la lépp xaj bu fekkente ne tey dañu la gis ak équipe bii tey suba ñu gis la ak ñële defe naa ñi ngay seeti sax duñ la wóolu ndax ku si mel ni man man Mariama mooy sama bunt mooy sama xarit moom laa xam bu ma sañoon fu ma la gis dama lay gis dama damay kii dama koy gisaale moom tam ci sa wet ñi nga andal tay tam ku si melni ni Marème si ma xam ko tay ma nga am mbégte mom tam di dalal ñu ngi lay dalal di la gërëm di la sant di ñaan ngeen and ta tamit am persévérance ci li ngeen di def di ngeen dajeeg lu nekk nak parfois sax ngeen def ay bande annonce yo xam ne da ngeen di xawa dénoncer touti nit ñi bëd yi ñu leen di xolé wala yi ñu leen di wax mais yeen ñi nekk si seen bir rek yeen xam li ngeen di daj ak ni ngeen ko yoré limay faral di wax rek kër bukki ciow da ngay lu rek jubal xam fi nga jëm mhm. ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal tam ngeen ñaanal ma man président parti bi d'abord ñaanal parti bi ñaanal ñi ma àndal parce que mu ngi dox nag quand même waaw du affaire Yoff du affaire Dakar du affaire benn région affaire 14 région la ak 45 département ak 557 communes si loolu si la ñuy dox ba tey yàlla dogal ñu dugg dialogue national ñu ngi ci comité de pilotage bi ñu ngi sant yàlla fu ñu nekk tamit nekkal fa dëkk bi ba thème ya nga xam ne moom la ñuy défendre ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ñu xam-xam boo xam ne defe naa bu ñu ko fa yóbboo suñu taxawaay dina mën a am solo mu profiter ci occasion boobu wan leen ne leen badge comité bi moo nekk nii suñu badge moo nekk nii ci comité de pilotage bi mu war a durer trois mois selon décret bi niñ ko defee ñu war a dugg si ay commission yoo xam ne defe naa li ñu fay yóbbu si xam-xam bu ñu ko intégré si rapport bi Sénégal yëpp dinañ ci gis seen bopp ngeen ñaanal ñu rek ñu fekke ko tal ko am fa taxawaay boo xam ne dinañu leen mën a parce que fu ñu nekk tam nekkal leen fa ba liñ si séentu si mébét bu àggee sa loxoy président de la république namu mu ko waxee bu amee consensus mu appliqué lépp maa ngi leen di gërëm di leen sant